kii salaamaaleykum wa rahmatulah ñu leen di dalal jàmm ci seen euh, Feus Net lundi bu ne ak vendredi bu ne ci yeneen yi feem waaye tey la ñuy tàmbalee di seen kër euh, di senego point comme ñëw na ci ki nga xam ne moom mooy 10 000 problèmes dafa mel ni ki ay problème am wàññeeku na ndaxte moom takk na soxna euh, soxna soo xamante ni mi ngi wooyoo si turu Awa Seck njaay kon euh, takk na ko soxna si nga xamante moom ngeen di gis si image yi moom Awa Seck Ndiaye moom moo nopp ba dof kii di dix mille problème xam naa dana ko wàññil ay problème am bu baax a baax ndax nit moom bu la bëggee bu la fekkee ci ay problème dala ciy génne ba mu daal di set wecc bu ko mënul mu wàññi ko bu baax a baax ba no stress dootul amati euh, kon Awa Ndiaye mi ngi noonu madame dix mille problème sëñ baa ngi noonu kon soxna si ma nga foofu ca euh, réew Espagne xam naa léegi mu ñëw ñu daal di def euh, lii di lune de miel yi ndax problème yi daal di mën a wàññeeku bu ñu fa noppee jaari sow dikkaat na gannaaw aji Sarr Ousmane Sonko euh, ñoo ko fayoon kon jaari dikkaat na ak yeneen yi ay xibaar ci benn waxtaan boo xam ne doon na ko amal ak yenn ci ay xaritam ñëw na ci li nga xam moom mooy génnub àdduna waaye juróom bu góor waaye xaritam yooyu bañ ko laajee nekkam euh, gannaaw bi nga ne mër réer ne menteg ñu lay coow ci àdduna bi yëpp ñëpp am tiis ak njàkkare est-ce que sa génnub àdduna papa nekk loo xam ni moo sabab ngir nga daal di gën a mën a làqutu kii di jaari sow ne waaw loolu bokk na ci ndaxte sama papa sama lépp la woon sama xarit la woon sama mentor la woon sama meilleur ami la woon nee na toujours dafay sentir ni dafa am vide ci côté maanaam amatul dara loo xamante ni daal moo ko saf ci àdduna ñu koy laaj ba xam lu ni mel moo tax ngeen daal di réer ne mër mu ne lool la ndaxte événement yi passé dafa diisoon ci man lool lool te sama mu suma xalaat ne dina génn àdduna bàyyi ma fi nee sax yenn saa yi day toog mel ni kuy waxtaan ak papaam naan ko waa lan moo tax nga teel a dem nii bàyyi ma fi nee na muy sentir toujours papaam mi ngi ci wetam jaari sow mooy waxati da léegi nag ñu dem fi nga xam ni moom mooy ci Dakar Buzz wax ñu ki nga xam ni moom mooy Wally Balago Seck Wally Balago Seck Faramareen bi dana jilaat micro bi le 5 juin bi ñuy dëgmal fas yéene def benn concert bu mag a mag a mag gannaaw bi mu toogee ab diir ci dëj bi nga xamante ni ca la nekkoon muy gën àdduna baayam coon balago sekk ñu koy ñaaral suñu borom yërëm ko xare ko àjjana yokk ay leeram kon waale mi ngi jox Faramareen yi rendez-vous juróomi fan ci weeru juin bi ñuy dëgmal mu fas yéene pëtëxal saa ñi dañuy daal di jeexle ci cent limite ak xale bu jigéen bii nga xamante ni moo dëkkee foofu ca Mali moo am lu toll si juróom-ñeenti doom juróom ñeenti ay seex la daal di jur mbir mi ma nga xewee foofu nga xam moom mooy ci réew Maroc borom këram di adjudant Kader Arbi nee na moom dafa kontaan loolu ba xamatul fu muy taxaw ndaxte actuellement nee na fu ne ñu ngi ko ciy woo ci àdduna bi rawatina président Mali sax woo na ko gannaaw bi ñu ko dimbalee ñu daal di rawale moom xale bu jigéen bi wuyoo turu Alima Cissé am ñaar fukki at juróom mu dem accoucher foofu ca hôpital bi nekk ca Casablanca am juróom doom gannaaw bi ñu doon def li nga xamante ni. moom mooy saytu biir bi gën laata muy am doom dañu jàpp ne woon juróom-ñaari seex la daal di amee waaye ndekete yoo ñaar yokk na ci muy juróom-ñeent ñu leen di ñaanal gudd fan ak wér ñoom seex yooyu nga xamante ni ñu ngi leen tee fii ñaari weer ndaxte dañu prématuré ñu toppatoo leen bu baax suñu borom rek mën yii dee kéemtaan.